je reviens euh, réellement au débat donc je disais que Amadou Ba déjà waa PS la ñu investir ko PS. ma yaa ngi koy gën a yàqal de. déedéet non non ñu <laughs> non xam nga waa APR duñ ko mos a. non non. jaaroon na fa jaaroon na fa daal xam nga wax naa la dafa dafa dafa jaaroon PS. jaar na sa génération du congrès. non xaar rek man damay wax loo xam ne moom moo ko wax man xam nga nit ki du ma ko waxal loo xam ne waxu ko parce que mooy li ma ko dañu toll ci jamono boo xam ne léegi il faut que ñu def très attention si suñu kàddu. man je préfère wax li ma xam lu wax lu ma màndu ci Amadou Ba himself moo ne jaar na PS comme je ko que jaar na PS donc bu ko waa PS invest defee une investiture pour gën ko jàppale gën ko dooleel dama jàpp ni waa PS dañu xam seen doom bëgg ko jàppale bëgg ko yóbbaale loolu laa jàpp. beneen bi si kin fat lu tax ñu def euh, investiture méridien ak investiture euh, naka arena may may préciser sànq Amadou Ba n'est chef de parti bu nekkul chef de parti. donc mënul jiite ay président de parti je parle sur le compte des de l'analyse politique et aussi femme boo xam ne c'est une politique. beneen bi Amadou Ba n'est pas un coordonnateur d'une coalition déglu baax li ma wax pour la complexité bi sous-tendre le candidat enfin xam ne le choix du candidat Amadou Ba pourquoi mu xaw complexe. Amadou Ba ne pas un coordonnateur d'une coalition je donne tout euh, cinq exemples man la Modou Fall est un coordonnateur d'une coalition boo nekkee coordonnateur d'une coalition mooy si sa mooy yow ñi nga jiite ñëpp. ay leader de parti lañu ou bien ay leader de mouvement maanaam ñoo xam ne dañu am dañu fenn Amadou Ba nekkul nekkul connecteur d'une coalition Amadou Ba n'est pas membre de la conférence des leaders de Benno donc gis nga yooyu ay handicap la parce que ñi fa nekk noonu li mu la wax nii loolu moo yore cëslaayu ñi nga xam ne tey ñoo war a porter léegi nag moo tax bañ ko bañ defee euh, investiture bi nga xam ne tey le président Macky Sall ba muy wax dafa ne Amadou Ba liñ lay liñ lay wax li lay liñ lay euh, wax mooy nga góorgóorlu nekk un rassembleur rassembleur mooy ku yaatal man boo gisee dans ma communication xam nga jëma fi nekk di xaxar kii que ce xam parce que je on travaille pas pour le second tour ñun on travaille pour le premier tour maintenant ki travaille pour mooy kan kii de déjà jëm a xam quelles sont les ressources yi mu soxla pour que ressources yooyu bu fekkente ni dafa xaw a na sax exemple tey ce n'est pas on cite ay ay Amadou Ba euh, naka naka euh, kii Khalifa Sall et autres parce que. c'est des personnes yoo xam ni mënoo ne nangul seen poids électoral am nañ ko tey mënoo ne Barthélémy Dias le maire Dakar ku mu àndal kooku amul poids électoral boo ko waxee da nga nax sa bopp parce que tamit Barthélémy Dias c'est le maire Dakar te kan la àndal Khalifa Sall donc on a besoin de toutes ces personnes là nga xam ne jot nañ def réew donc moo tax en principe ñun bu ñuy wax on essaie d'être un rassembleur parce euh, de le chroniqueur mi ngi koy wax euh, si Albert doyen mi ngi naan on a besoin de euh, toogaat li ñuy wax l'unité nationale mais l'unité nationale c'est un pour créer loolu pour amaat l'unité nationale mais nan nga ko woon bu defee lu dul se reposer sur des personnes yoo xam ne xam nañu c'est des personnes de valeur. mais yéen doo leen rassembler waa Bennoo. yi dem demal seen bopp ngeen di. jéem a rassembler koo xamante ni bokkul Bennoo. Fara Fara jëm leen récupérer Aly Ngouille. non jëm leen récupérer Boun Abdallah Dionne jëm leen récupérer Mame Boye Diao. lépp loo gis mais ngeen singali Khalifa. lépp lépp loo gis. Ah. tolluwaay la ak waxtu. non lépp non non non lépp loo gis tolluwaay la tolluwaay la tolluwaay la ak waxtu xam nga aujourd'hui da ngeen ragal dem ak non non xam nga aujourd'hui j'ai bien dit képp ku déposé candidature am j'ai j'ai ci parrainage man man j'ai bien dit j'ai bien dit ku jàllu parrainage pour man Amadou Ba il doit être un rassembleur ku jàllu parrainage c'est à lui d'aller le rencontrer pour jëm ko jël. lu tax ngay xalaat Khalifa bañ a jàll. parce que damay ñaan yàlla bañ jàll damay ñaan yàlla bañ jàll. damay ñaan yàlla bañ jàll pour ñu ñëw. waxtaan ak moom non xam nga ne man damay wax dama en aujourd'hui euh, li may wax mooy li ma gëm. Amadou Ba laa bëgg mu gagner Amadou Ba laa bëgg mu gagné. bu doon sama sago toutes les personnes yi nga xam ne c'est des personnes ressources bëgg a liggéey Sénégal te mën liggéey Sénégal doo Khalifa Sall bokk na ci. il faut le dire Khalifa Sall bokk na ci ñeneen bokk nañ ci ay ñeneen si bokk ñëpp il faudrait que suñu candidat Amadou Ba jël tànk jël tànkam dem fekk leen waxtaan ñoom pour yaatal parce que mënoo bëgg mënoo dem élection pour xeex ba noppi di soxla di noonox ku ne soxla li ñu soxla fu toll nii que les gens li ngeen wax sànq dañ soxla rupture ñun on a dit le changement dans la continuité mais foofu il faut ngeen comprendre ni entre simmeeku le changement dans la continuité mais y a une dichotomie là waaw d'accord euh, mais xool entre simmeeku entre simmeeku ak solo dung xaj na si mm-hmm. et dung boobu mooy rupture voilà dung boobu nag mooy rupture mm-hmm. donc forcément y aura une rupture mais seulement boo gisee ñu naan continuité parce que dafa am koo xam ne président Macky Sall moo moo moo ñu tànnal un candidat parce que ñu lépp ko jox carte blanche mu xool waxtaan ak ñun ñëpp ba ñun ñu accepté na ko kat koñ tànnal mu mooy gën ci ñun mu tànnal ñu Amadou Ba Amadou Ba nag bi ñu tànnal il va continuer le PSE le plan Sénégal émergent mais par contre Amadou Ba aussi dafa jàng am xam-xam am xalaatam dafay apporter sa touche nouvelle sa touche nouvelle la moo tax ñu ne dafay am une continuité par rapport par rapport au PSE mais dafay am un changement par rapport ak yi nga xam ne Amadou Ba aussi xam-xam da koy da koy indi pour gën a ñoŋal liggéey parce que tantôt on a l'habitude de dire que le un ñëpp nangul nañ ko ko moo li ñu wax des fois le matériel euh, euh, mais il n'a pas un bilan immatériel loolu des fois gars yi wax donc ñun on constate que bu fekkee ne Sénégalais yi dañuy wax loolu Amadou Ba mooy suñu candidat duñ fi nekk di di xëccoo xiiroo ngaayoo xam xam nañu wax ce que les gens nous ont ce que les gens ont critiqué Amadou Ba doit la prendre en conséquence pour bu ñëwee améliorer ko aujourd'hui c'est ça problème nekkuñu fi maanaam euh, li Macky Sall def lépp a baax su Macky li mu def yëpp bu baaxoon tey sénégal yi dañuy ñëppay tëdd na la fàtte lépp daf fekk nit rek la day def tey lu baax suba am loo xam ne xëy na naam manqué na kii ñëw nag da koy continuer d'autant plus que avantage bi ñu am aussi mooy euh, sànq sànq fet maa dëgg sànq euh, doyen sànq di sànq di sànq di ko wax ci politique interne Khalifa Sall am atu atu bi mu am mooy xam ne politique interne euh, Sénégal dëgg la mais ñu atu bi ñu ëppale Khalifa Sall mais le président Macky Sall bu Khalifa Sall xamee politique interne Sénégal mais président Macky Sall moo ko dàqale moo ko gën a xam moom jiite réew mi pendant 12 ans. donc kooku. jiite réew mi te bul fàtte ne Khalifa moo fal Macky Sall interne bokk na ci ñi interne xam nga parle ay jiite politique interne mooy mooy xam xam réew mi ba ci biir gox goxaan yi loolu politique interne donc parce que Amadou euh, parce que Khalifa Sall jot na am fu mu jaar donc jot na am lu mu xam léegi nag j'ai dit que ndegam Amadou ndegam euh, Khalifa Sall moo ko ëppalee Amadou Ba ci analyse ci fait euh, doyen wax ci analyse am mhm. dafa ne Khalifa Sall ëppale na Amadou Ba xam li mu xam ci politique interne ok man man nangu ko j'ai saisi. j'ai saisi waaw mais mani ku ne xam nga ni ñun. ki ñu àndal mu ñu dooleel parce que tey aujourd'hui on a besoin d'un duo très fort entre le PM et le président de la République donc le président Macky Sall nag ku ne xam nga ni moo gën a xam réew mi nag Khalifa Sall donc kooku itam bu ñëwee gën a doole suñu candidat comme ñu ñoo gën a xam Khalifa Sall réew mi te itam ñu ñoo ëpp ñu ñoo ëpp Khalifa Sall li nga xam te wax na ko ba noppi mooy la gestion étatique donc loolu tey PS yegg ci maillage du territoire APR yeggu fa non non lépp loo gis xam nga lépp lépp loo gis PS mën nga